gracias.

jàpp naa ne kon wax dëgg yàlla li war a am am na murit ndigal te ñëpp umpale wuñu diggante Cheikh Abdou ak Serigne Mountakha Mbacké Bachir xaritam la doomam la léppam la ci ndigal loolu la dugal boppam mais diggante président Macky Sall parce que autoroute Ila Touba bi moom lañ tuddee tey la réalisation di siècle président Macky Sall wax na wan na ni jëfal na Serigne Touba waaye Serigne Touba ku ko defal bu la fayee nga xam ni fay na la. mobilisation boo xam ni tey wax de 1960 à nos jours c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal que tay, murid en masse ndigal mooy suñu foi mooy suñu lépp mooy suñu doole kon nag nañu wax ni Cheikh Abdou Mom sànni na karawaas ga jiitu na leen wan na ne du sen morom. parce que bi mu duggee ci làmb gi làng gi wane na ni am na beneen bu bees bu ci am kon nag nañu wax ni ah président Macky Sall yaakaaram mën na gën a parce que lim daan ñak bi Cheikh Abdou ñëwee vraiment li ci ëpp mu ngi koy défarat di recoller les morceaux parce que mbolo mo ngi nga gis nekkul mbolo mo xamni mbolo mbooloom waye waye la ay xalé lañ te fim ne xalé yi ñëpp am seen carte d'identité li ñi wax dal moy ila Touba bi yalla ñu ko ibé si bismillahir rahmanir rahim nit ñi siy daw yalla dimbali leen ñu daw si jamm parce que bijou bu melni, japp jàpp naa ni boo doon wër Afrique sous région bi do ko fi gis na nga wër 412 milliards bu ko neexoon yóbbu ko fu ko neex ci Sénégal mais mu ni da koy indi Touba waaw kon ñu ngi sante Yalla bu baaxa baax ñu ngi sante Yalla bu baax di sante Cheikh Abdou mi nga xamni mo waral li jere ngeen jëf. contane ci rek euh, ñun ñi nga doon ndaw ño xamante ndaw Cheikh Abdou Bali gene Fatma lañ di ko xamante dafa bokk ci waak Serigne Touba euh, ñu magal ko teddal ko torop mom da lañ andal ci bis bi di contane nak ci président Macky Sall mi nga xamanteni ni mom mo fi indi autoroute Ila Touba ñu am ci contentement bu baaxa baax ndax té li dal yakarna jafe naa gis ci président té Macky Sall dal ñing koy ñaanal ci kaw ci kanam ñu ñaan deuxième mandat mu am ko ba benen sax bu ko ci mané yok ñu def troisième mandat ci katunu yalla lool la lañ ñaan yalla té lool lañ bëgg Cheikh Abdou Mbacké Gayna Fatma Mom tamit ñing koy ñaanal bu baaxa baax ndax man na né bu exé ba fi mom la ndax dafa taxawu ndaw ñi. a ah, di sant suñu borom bu baax rek euh, di ñaanal seriñ sëriñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo ko ubbi suñu borom euh, yàggal ko fi te wéral ko ba li mu yéene liggéel seriñ Touba maamam ji mu def ko ni mu ko bëggee waaye nag di ñaanal sëriñ Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo tegoon xeer wi moo président Macky Sall ñoo ko tegoon amoon yéene fekke ko waaye suñu borom mooy seet lu ko neex mu def ko ci ku ko neex kon sëriñ Sidi Mokhtar yàlla nañ ko suñu borom fayal te yokk ay leeram euh, autoroute bu baax ci ànd gi na ànd sunu sëriñ di ko jàppale muy sëriñ Cheikh Abdou Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma mi nga xam ne moom la yàlla dogal mbooloo mi mu dénk ñu ko ñu ko koy taxawul di ko organise fii mi ngi ñëw ñooy war a ànd bi euh, mu moom it mu am ku mu am yéene jàppale président ci anam yëpp ay moyens alalam léppam mu di ko def ngir jëm sëriñ Touba kon ñu am nañ mbégte bu baax ci lii président def fii ci Touba di ñaan ci kattanu yàlla lii nga xam ne moom lañ jëm mooy 2019 bi Euh, premier tour 24 euh, février 24 24 février ñu daal di gagné premier tour ci kattanu yàlla maa ngi yonte barke Serigne Touba waye barke Serigne muntaka mbake mi nga xamne moy khalifa general de Mouride waye nga xamne moy mooy ubbi lii di ñaanit projet buñ fi tek yalla suñu borom may kattan ban réaliser ko comme ni di ñaanal Cheikh Abdou Bali mbake yalla yagal ko fi ñun ñoo ngi jógee ci commune taif and ak 14 commune yépp di mobiliser Cheikh Abdou Bali di ko ñaanal li ko eh, président dénk suñ borom defal ko ci ndam incha allah ñu falaat président au premier tour. te di gërëm son excellence le président de la république ñu ngi koy souhaiter la bienvenue ñi ngi ñaan lii jikko ñi ngi sant di gërëm suñu kilifa suñu leader Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma di ñaan liggéey bi nga xam ni mi ngi ko sumb nekk fii l'homme fort de Touba ci nga ci li nga xam ne mooy politique ñi ngi koy ak di ko diko ñaanal bu baax baax di wax ni nak suñ mobilisation dañ ko xép ndax biñ ñëwé dañ ñoo téé fi ni ñu du ngeen mëna jall wax deug yalla lolo tax mais nit ña ñaga dess ci koñ ba te gis ngeen fi ni mel kon ñi ngi sante Cheikh Abdou di sante président de la République di sante toute la population surtout xalé yi ñu andal ak jigéen ñi ak suñu yaayé yépp ñi ngi leen di sante bu baax baax